waaw asalaamaaleykum waa Guédiawaye Info tey ji ñi ngi taxaw ak Anna mi nga xamante ne moom moo organisé festival diversité culturelle tey ji ñu joxoo tey mu wax ci xalaatam ak lu waral loolu waaw merci beaucoup euh, damay nuyu ñëpp rek ñi nga xamante ne ñu ngi jàkkaarloo ñun dañu seetaan di wax ne rek man euh, dañoo am mbégte bu rëy pour organiser bi donc soo gisee ñu def ko donc bale sama bale andi famille association andi famille ak euh, compagnie africaine ñoo def ko production te tey soo xoolee li ci gën a bari dañu daan invité ñi dem ay Dakar comme Grand Théâtre ay Sorano affaire yooyu ñu ne pourquoi pas ñun tamit fii Guédiawaye am na ay artistes ay talent ñoo fi nekk pourquoi pas ñu ne ñu organiser suñu première édition moo waraloon tey jii ñu def ko daal ci invité suñu mbokk artistes yëpp yi nga xamante ne ñu ngi Géejawaay Dakar ku su nekk ñëw gis sa bopp ñu def essence culturelle bi ci plateau Géejawaay. festival waaw yëg-yëg bi ma am dafa foor dafa foor trop parce que nit amul lu dul ay mbokkam ak ay dëkkandoom ak ay am di jàmm donc nga woote ñu wuy si ne dafa neex rawatina sama mbokk handicapé yi donc su ma leen di gis ñuy yëngatu ci li nga xamante ne ci développement réew bi la bokk damay kontaan parce que tamit loolu moo ñu war ñun waruñu jàpp suñu handicap ba nga xamante ne lépp war nañ koo liggéey ci suñu développement réew ñu koy ñu koy bañ a def moo tax ne tey ji bale ko gën a créé tamit ci wane ne tey am na place ci société bi donc war na war na mën a nekk tamit ci instance de décision yi yàlla nag xiir ñu ci aar bi moo tax aussi à travers laar bi ñu nekk ñu ci bay suñu waar di ci wane suñu bopp ba tax na ñi def tamit euh, festival bi ay handicapé ak ñu nekkul handicapé pour tay ji fofu ñuy poser question tay kan moo fi handicapé ndaxte tay ji ñi nekkul handicapé ak ñi nekk handicapé ñëpp ñoo bokk plateau bi ku nekk def nga sa aar ni nga ko yëgee ak ni nga ko sentiré donc may laaj vraiment kan moo fi handicapé loolu moom vraiment moo nekk li nga xamante daf ma gën a neex te aussi leneen li nekk na si yeneen morom handicapé yi nga xam dañoo tëju bu ñu gisee ñi ñuy jéem di def dara ñoom da leen di génn ci lu ñu nekk ba tax na daal fierté bu rëy la daal macha allah

lii dañ ko bëgg mu nekk projet donc bëgguñu def tey rek mu yem tey donc dañu bëgg nekk mu nekk continuité chaque année ñu def ko wala sax chaque 6 mois buñ ko mënee def def ko. vraiment tamit mën naa ne kontaan nañ ci baax nekk na réussite par rapport ak ñi nga xamante ne woote nga ñëpp ñëw wu si la ñenn ñi jàpp si macha allah ba vraiment mu réussir donc boo wootee ñëpp wuy si la rek donc am nga lépp te loolu moo fi ne daal. waaw euh, mairie bi aussi euh, jàppale nañ ñi parce que li ngeen fi gis muy baas yi ak seize yëpp ñoom ñoo ñu ko jàppale vraiment ñoom ñoo ñu ko jàppale am na ñeneen tamit ñu fi nekk comme lu mel na Yero moo ñu jëlal sono donc ñeneen tamit ñëw jàpp ci seen i loxo lu ñu yor seen i poos aussi def si ba vraiment ñi mën a yendu ensemble togg ay añ nit ñi añ. donc macha allah daal ku si nekk rek jàpp nga si ni nga ci mënee ba tax na dañuy jaajëfal yëpp te lii tamit première édition rek mu demee ni yomb daal donc fierté la bu rëy ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci jàpp waa damay ñaanal waa Guédiawaye info bu baax a baax di na seen liggéey am na solo parce que may nañu occasion tey lii nga xam ne dem def nañ ko fii au niveau Guédiawaye mu nekk suñu première édition may nañu visibilité te tey dañ ñu doon toog fii rek ñuy répété ba sonn ñi ñuy woo ñuy dem feneen amaana tey suñuy œuvre génnul ba ñëpp xam ko te tey géejawaay Euh, lii ay talentueux ñoo fi ne kon tey bu info géejawaay info ñëw fii daal di koy jël ñun dañ leen di sant gërëm leen parce que ñu ngi yóbbu ci beneen dimension bi nga xamante ne ñun loolu la ñuy ñaan yàlla ñëpp xam ne tey ci biir géejawaay am na ñu fi nekk ay acteurs ou actrices ñi yëngu ci développement di yëngu ci culture yi nga xamante ne vraiment nekkuñ ci tali bi daal di tàll seen loxo ànd ànd seeg seen yeneen morom nawle ñu nekkul handicapé parce que dañ naan union fait la force daal donc loolu ñu def ñoom tamit déplacement bi ñoo jël ko dama ci kontaan di leen ñaanal yàlla lépp li nga xamante ne mën nañ ko ren yàlla na leen yàlla yokk ba ñu mën lu ko raw déwén ci barki alxuraan. waaw man damay njëkk a wax ne rek damay wax mention spéciale a nga xamante ne mooy El Hadj Lo ndaxte benn loxo du tàcc lii nii am fi tey maa moom ñoo ko def compagnie ak sama association ñoo def euh, coproduction ñu organiser li donc vraiment jàmbaar la te moom ku jar a jàppale la parce que tamit tey boo gisee aar géejawaay côté danse bi deewut yàlla ak moom la parce que moom tamit da cee téye ba mu dëgër ñuy remercier aussi mairie bi ñoom tamit jàpp nañ ci def nañ ci seen loxo ñi remercier tamit euh, Ibrahima Diawara ñii remercier ñoom Assane mouvement suñu banlieue ñuy remercier tamit euh, waa ñoom Giri Bamba ñoom mouvement Meya la ñi ñi nga xamante ne ñoo yor calebasse émergence fii ci mairie bi ñi remercier ñoom Anta saane ak Mama Kumba saane ñi nga xamante ne xale yi ngeen gisoon sànq ñu solu ñoom ñoo leen solal vraiment jàpp na ci bés bi bu baax ñoom Mama Caba ak Caba Thiès ak Bas Dieng ñoom ñëpp jàpp nañ si ndax maa ngi la koy wax sànq ñi dañoo andi lii ñii andi lii ñii andi lii ba bës bi rafet donc ñooñu ñëpp ñoo leen sant di leen gërëm mais également may remercier sama benn jabar jaari dem ànd ak jëkkëram tey waroon nañoo am fu ñu dem mais dañ ne dañuy toog seetaan festival bi jaari Siré ak Omar dem maa leen di remercier bu baax di remercier waa Géejawaay ñëpp parce que wuy si nañ ma sama waa koñ samay mbokk ak séeri suñu séeri mari nga xamante ne añu neex yi moo ko togg macha allah maa ngi sant ñëpp mais du ma tëj te bàyyi ma tamit waa Géejawaay info seen taxawaay rafet na ndax depuis ba ñu commencé ba léegi yéen a ngi fi ànd ak ñun ci journée bi macha allah yal na leen yàlla jàppale yen ñëpp may sant di gërëm ñëpp ak yoro ñaa mi nga xamante ne moo ñu jëlal sono bi ñoom ñëpp ak ñoom bakka njole ñi yore micro central ñoom jibi ñoom deef ñëpp maa ngi sant di gërëm ñëpp macha allah jërëjëf